asalaamaaleykum mbokku Sénégal asalaamaaleykum ñëpp ñuy suivre kewlo TV euh, tey ñu ngi fii ak euh, le président Momar ndaw xawma ma ndax dañuy continuer suñu abus de langage Momar ndaw c'est un homme du sérail ku yàgg ci euh, yëngu ci mbir yu ni mel la sénégalais yu bëri nag comprendre ñu ñu ngi laajte ñu ngi jot email ñu ngi jot message alors ñu bëggoon a xam rek bi nga xamante ne moo fi woon lan yan coppite moom moo ci am yan innovation moom moo ci am ak lu taxoon bële doxul ak lu waral ñu mën a am yaakaar ci bii nii. waaw jërëjëf xam nga bi nga xamee ne wàññi nañ gis ne commencement bi ñëpp a ko respecté ñu tuuti ñu gis ay bailleur di xool ay prox ndollo pour rëcc li nga xam ne mooy taxi yi li ñu wax eh, ñenn ñi di jéem a génnee seen i locataire et cetera pour jéem a yokkaat prix yi. Euh, biñ gisee ne loolu yëpp nag li tax indi woon sooxe-sooxe amuloon organe boo xam ne organe u état la boo xam ne mooy def suivi bi boo ko laajee sax yi dañ naan la affaire bi amuloon suivi léegi nag bi nga xamee ne xool nañ loolu mu dem ñu gis ne loolu bokk na ci li tax mu sooxe ñu nekkoon nañ ko utal solution mm-hmm. wutal ko solution moy set nan lañuy def ba soxé soxé ya nga xamné mom lañu gissone ci 2014 mu baña a légui depuis un an ñu ngi ciy liggéey euh, ba biñ liggéeyee ba conclure dal dañ né dinañ changer def ben texte bu bees bo xamné mom mo moo gérer agence immobilière yeeg courtier yeeg ñom it seen bailleurs yi parce que ñu ci bari xamuñ li réglementation bi wax te bu fekkee ne agence bi wala courtier bi moo war a dimbale bailleur bi te xamul lu réglementation wax day am jafe-jafe ndax da ngay gis ne tey jii bailleur bi nga xam ne respecté wul prix yi nga xam ne moom la état wax ne moom la war a louer il risque deux à six mois de prison hmm. wala alamande de vingt mille à un million cinq cent mille xam nga kon kooku ñàkk xam mën na ko dugal ci erreur hmm. mais moom bu fekkee xamul ki nga xam ne mooy professionnel bi nekk bailleur bi warna na xam ba dimbalé ko pour que bamu dugg ci erreur hmm yoon la fay wax né bala nga dugg ci benn kër warna lañ la defal liñ wax surface corrigée jël kayit gi jox lako suñ la joxul kayit gi rek déjà bayer bi mi ngi ci infraction hmm légui kon hmm, ñàkk xam hmm. lolu ñu né kon lolu nañ sét nan lañuy def ba ñi nga xam né ño wara dimbalé bayer yi ñom ñu mëna def seen liggéey correctement kooku mooy benn innovation waaw waaw léegi beneen innovation bi moy ñu né ah comme amuloon suivi nañ taxawal ben organe bo xamné mom moy def suivi décision yi nga xamné yépp mo jëm ci location nekul bees bi kessé mais texte location yi texte yu bari la yo xamné yi yii lay wax yi lii lay wax yi lii lay wax mais ñu né texte yoy yépp nak pour ñu mun ko appliquer il faut que am organe bo xamné organe état bi la moy taxaw ne lii ni nii lañ koy défé ñu respecter li nga xamné moy réglementation donc lolu moy yenen lu bees li nga xamné ne euh, am par rapport ak décision ya nga xam ne jëloon nañ ko si 2014. Hmm. léegi ki nga xamante ne tey mi ngi déjà ci benn contrat en cours. Hmm. Euh, moom euh, gis nañu prix tarif yi ni ñu ko organiser. moom mooy dem waxi bailleuram ne ko léegi lii laay fay. Hmm. wala bailleur bi moom mooy ñëw. Euh, informer ko ci nouvelle parce que d'habitude. les bailleurs ñoom duñu wax dara dañuy toog di seetaan. waaw léegi ndax comme avantage bi ci locataire bi locataire bi moo war a laaj moom àqam mm-hmm. donc locataire bi bu ñëwee fin du mois ku doon fay 100 000 da ngay dindi directement 15 000 yi muy 15 pour cent mm-hmm. nga fay bayeur bi 85 000. bu bañee jël. su bañee jël day indi problème boppam pourquoi mm-hmm. parce que bu bañee jël xaalis bi mun nga ko yóbbu fi ñuy wax caisse de dépôt et consignation. nga jaarale ko par voie d'huissier wala nga dem tribunal ne da nga ko bëgg a yóbbu caisse de dépôt nga fay timbre 2000 ñu bindal le courrier bi autorisé la nga dem déposer boo fa déposer mom bailleur bi du laal bi Té du la mëna attaquer attaqué parce que fayoo comprendre li ma la te bu la attaqué parce que fayoo bu ngeen démé tribunal da nga nan refusé il a refusé accepter euh, respecter réglementation kon facilement deux à six mois de prison mën na ko fa dal moom mii nga xam ne moo tribunal pour ne da nga da nga ko fayee lu nga war a un million cinq cent mille francs amende mën na ko fa dal kon bailleur bi amul pexe bu mu mun a def tey jii ba rëcc bu bañee jël am na problème mënulaa génnee parce que pour nga génnee nit conditions yi c'est très compliqué quatre condition lañ mën a génnee locataire. ban ak benn bi mooy locataire bi toog un mois fayu la mais locataire bi jël xaalis yóbbu ko caisse de dépôt yore reseem munoo wax ne fayu la. Mm-hmm. te kenn nit rek moo mën a génnee locataire mooy juge. Hmm. du borom kër du huissier. tant que juge bi deful ordonnance d'expulsion bi mbind ko ne kii dañ ko génnee. Hmm. huissier bi ci boppam amul droit ne damay génnee ki nga xam ne mooy locataire bi kon premier cas mooy fayu la. Hmm. bu la fayul yow bailleur bi li nga mun mooy nga saisir juge bi da ngay jël huissier huissier bi ñëw ci waa ji ne ko ah sama bailleur kat nee na da ko ameel un mois. soo ma fayul convoqué naa le tribunal dans 30 jours dans 30 jours boo demee rek juge bi day wax da ngay génn parce que fayoo kooku mooy benn condition beneen condition bi mooy borom kër gi ne man damaa bëgg a dëkk ci kër gi lii la condition bi d'abord il faut ngeen nekk période triennale maanaam koo xam ne dafa dugg 2023 1er janvier 1er janvier 2026 ci lay am 3 ans donc 6 mois avant 1er janvier 2026 je nga koy jox congé pour que mu le 1er janvier 2026 soo ko fàttee ba 5 mois il faut nga le 1er janvier 3 troisième année bi 2029 pour nga mun koo jox feuille bi valablement donc kooku une condition de date beneen condition bi mooy ne yow yaa ko mun demander pour yow wala sa dom, wala sa doomu soxna wala sa wayjuru soxna wala sa propre wayjur mais munoo demander nit génn sax parce que da nga bëgg duggal sa frère wala sa jarbar sa frère jumo sax mëno ko duggal hmm. pour né da ngay génné té bo waxé lolu ba paré nga euh sama dom moy dugg da ngay wax sama dom ni la tuddu bulletin de naissance am li ak li ak ak yépp joxé détail yépp ba paré su féké koku nga wax né mo fa wara dugg dugg dugg fa hmm. da ngay rembourser waji 4 millions 800 mille bu doon 200 mille par mois la lay fay 24 hmm. mois de loyer su dé ya fa ya fa dëkk wala koku dëkk fa mais génn avant deux ans d'aller rembourser 4 millions 800 mille bu doon ne 200 mille francs ngay fay location léegi beneen bi ci nek moy tay ji deuxième troisième cas de figure xam nga néna premier cas de figure ku fayul. Mm-hmm. da ngay saisir donc juge bi juge bi rek ko mun a génne. deuxième cas de figure moy nga def congé juge bi rek ko mun a génne bu congé bi jeexee troisième cas de figure nga né da ngay tabaxaat. Mm-hmm. benn rek lañ nangu moy nga rajaxe kër gi tabaxat mais bu fekke ne da ngay defar ay carreau wala da ngay defar ay aménagement wala yoy mëno ko génne te booy rajaxee kër gi di tabaxat kenn amul droit dëkk ci kër ga kudul ki nga xamné moy gardien té bur nga def lolu da ngay bind da nga koy bind feuille bo xamné ne da nga koy jox huissier bi koy indi né architecte bi diw la li moy numéro téléphone sama autorisation de construire mi ngi ni numéro baa ngi nii yëg yëpp bu fekkee du lo xamné architecte koy liggéey da ngay wax ne ki nga xamne mom moy entrepreneur bi diw la adresse ma ngi ni telephone ma ngi ni et cetera legui nak bo bo rajaxé kër gi ñi nga xamne ño fa nekkoon ñoy prioritaire bu de da ngay tabaxa ba ngay luyé wat soko luyé ñenen da ngay rembourser 4 millions 800 000 bu fekkee ne euh, euh, joxawaatoo len ko est ce que fofu mënu cee ut porox ndol pour dellowaat prix ba fam néwon wa xam nga bu fekkee né dafa tabaxat kër gi mhm. balaa mu ko mën a luye day def li ñuy wax surface corrigée ndax yoon nee na amoo droit luye kër te defoo surface corrigée mm-hmm. boo defee surface corrigée doo ëppal mm-hmm. parce que yoon mooy wax lan lañ def ci investissement ci kër gi kër gi nan la yaatoo ban zone la nekk ndax nan lañ ko tabaxee loolu mooy surface corrigée waaw loolu lay surface corrigée d'accord donc zone yëpp lay jël en compte mm-hmm. euh, par exemple tey ji da ngay gis ñu ne la euh, boo ma yeggali ci quatrième kii bi après ma wax loolu surface corrigée ñaar da nga caa bëgg a dëkk nga nga jox ko congé laaj juge ñetteel ba nga nga war a rajaxe kër gi tabaxaat ko nga laaj juge beneen bi mooy bu fekkee ne kër gi dafa nar a màbb ci kaw nit ñi. Hmm. protection civile donc ministère de l' intérieur euh, ñooñu préfet mun nañoo génnee ñaa dëkk ci kër ga pour sauver leen. Hmm. à part amul benn borom kër bu mun a génnee benn locataire juge kese moo mun a génne locataire donc képp ku ko xam ne borom kër nga la wax génnal. bul génn ñëwal commission ñu wax la ndax yaa nekk ci yoon wala nekkoo ci yoon li ma doon expliquer sànq mi ngi toll ci li nga xam ne moom mooy. surface corrigée surface corrigée xam nga euh, bailleur yu bari dañoo yaakaar ne état bi tëddeewul njaaxaanaay. Hmm. mais état bi tëddee njaaxaanaay moo tax mu ne par force da ngaa war a def surface corrigée soo defee surface corrigée yow lépp loo xam ne yaay borom kër gi def nga ko ci investissement si kër gi surface corrigée da koy jël en compte. xam nga ñu bari dañuy wax rek ne way trois chambres salon dañu waroon def affaire bi par zone. ne hmm. trois chambres salon géejawaay. Hmm. mais trois chambres salon géejawaay bu ñu ne cent mille la ñaari kër mun nañ taqaloo. Hmm. bokk sax même plan maanaam même yaatuwaay. mais kër gi jàkkaarloo géej moo gën a seer kër gi wan ginnaaw géej. kër gi nga xam ne ci suuf dër la. kër gi am karo moo ko gën a seer. kër gi nga xam ne ci suuf karo la kër gi nepp nekk bu moo gën a seer. donc parce que loolu yëpp surface ko da koy jël en considération surface corrigée pour ñu def ko expert bi day ñëw ba ci biir kër gi mesurer kër gi yëpp néeg bu nekk mu mesurer ko xool néeg bu nekk ndax néeg bi nga xam ne soo ubbee palanteer ngelaw dugg moo gën a cher néeg bi nga xam ne boo ubbee palanteer ngelaw du dugg néeg bi xam ne moo ëpp lumière moo gën a cher néeg bi nga xam ne amul lumière bu doy ba nga da ngay taal lampe néeg bi nga xam ne boo ubbee sa buntu gis panorama bu rafet moo xam géej moo xam lu rafet mm-hmm. moo gën a cher néeg bi nga xam ne boo tijjee doo gis dara lu may ay miir ay yeneen bâtiment donc surface corrigée kër gu am chauffe-eau hmm. bokul ak kër gu amul chauffe-eau nombre de robinets ci kër gi sax day tax prix bi gëna cher hmm. kon lepp lo xam borom kër gi def na comme investissement surface corrigée daf koy jël en compte pour que kenn du jaay perte lolu état da koy ayé. Hmm. waaye nak ku bëgga ëppal tam état ne la déet waro ëppal li ak li mo ci nekk Té gis nañ né njëgu njëgu location bi xam nga légui léeg nga dégg nit né la man damaa leb banque damaa def ciment nangam. Mm. dafa am ñu bari dañuy def erreur. parce que boo demee leb banque nga ne da ngay def investissement boo xam ne rentabilité am ay vingt ans la ay trente ans mm. nga dem leb banque war a rembourser en cinq ans ba pare bugg a jël euh, loolu nga war a mm. rembourser moom boobu teg ko ci kaw ñi nga fay luwe teewal ko ci yoon. parce que durée bi nga war a rembourser bokkul ak durée bi nga leb. ak durée bi nga durée bi nga war a am sa xaalis. ndax loolu kii la ndax euh, euh, investissement bi pour mu ñëw ak diire bi nga xam ne mu nga leb banque tolloo donc su ko defee dangay dugg ci loo xam ne après nga teg ko à tort locataire bi suñu waxee nga ne état bi malgré li ma leb. yaa ngi def erreur. beneen bi ci nekk mooy euh, bailleur yu bari agence nationale de la statistique dafa dugg ci kër yëpp compté d'abord kër yi la compté. Mhm. ñaata kër moo am. mu wax ñaata kër location mu ne trois cent quatre vingt un mille logements moo am cent vingt seize mille quatre cent moom lañ ciy loué mu ne boo xoolee cinquante deux virgule cinq pour cent kër yi ñu loué ña koy loué dañoo xëy rek kër gi ñëw ci ñoom maanaam euh, defuñ ci benn ciment fer jënduñu ciment jënduñu fer mm-hmm. ndax dañ ko donn mm-hmm. deux virgule cinq pour cent yi ñoom li nga xam ne moom moo leen dikkee mooy dañ leen ko may comme par exemple nit takk jabar may ko kër. Mhm. donc ça fait dire que cinquante cinq pour cent ñiy luye kër jotewuñoo maçon jot jënduñ ciment jënd mënuñu wax ne ciment bi dafa cher. Mhm. donc mu des quarante cinq pour cent quarante cinq pour cent yooyu ñu ci bari kër yi ñuy luye amortir na bu yàgg. mu dess nak ñi nga xam ne ñooñu dañoo dem def ay prêt banque ak yooyu. képp koo xamante ne nag yaa ngi ci location euh loolu moom moy euh, li nga xamante ne moom la président Macky Sall jël ko décision nañu ko défé won 2014 tiré nañ ci ay enseignement ba tay def nañ des innovations majeures pour baisser les prix des loyers sénégalais ñom ñoo ci dess comme ni ko président euh, commission de régulation du loyer waxee na ñëpp ànd ak seen fulla ak seen fayda doxalee ko noonu ngir euh, jëriñu askan wi asalaamualeykum wa rahmatullah